bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin tey mooy sunu bindu juróom fukkeel ci sunu téere masaalikul jinaan bu Cheikh Ahmadou Bamba yàlla gërëm ko te jëriñ jaam ñi ci moom Sëñ Tubaa nee na faslun fiihaa gi lum ci jublu moo di ci xeetu rasail yi doon jàngale bul fàtte bunt bi mu ubbi woon fi razaili la ci xeetu caay-caay yi nga xam ne mooy jikko yu bon yu ñaaw yi nga xam ne seytaane bu mënee ab jaam ba saxal ko ca moom jikko yooyee da koy gàllankoor ba du am ngërëmal yàlla waaye da koy gàllankoor ba du àgg du mën a dox jëm ca boroomam nga xam ne da leen war a dagg da nga leen war a na dagg mi ngi mel ne bu doon ab oto la rek ñu ne xeetu paan yi nga xam ne boo ko amee moom mënoo koo sooxaale moom doo mën a dem am na yooyu boo ko amee man ngaa sooxaale yàlla mën naa def nga dem ba àgg waaw waaye am na yooyu nag mënee su sooxaale <laughs> mënee su ko sooxaale mu ngi noonu mu ne wa qassama suufiyu lil qismayni tilka razaila bi gayri ni waxas sama seddale na as suufiyu kok suufiyu ka lam ci jublu mooy lan mooy ahlu tasawuf ahlu tasawuf lil may ne ñeel ñaari xaaj tilka rasaila yooyee caay-caay bi xayri may ne ci lu dul fen ahlu tasawuf seeni woroom xam-xam ñoom imaamul euh, Ghazali dañoo wax ne caay-caay yi nga xam ne moom la doomu aadama bi di làmboo dañ koy séddale ci ñaari xaaj zahirat yu feeñ baatinatin ak yu nëbb am na nag yu ñuy bind zahiratan zahiratin caay-caay yoo xam ne day feeñ baatinatin ak caay-caay yoo xam ne day nëbbu ca biir ñaar yooyu lay doon maanaam jikko yi nga xam ne neexut yàlla kenn mënu ca amee ngërëmale sunu borom bal dala koy tee am yooya day am yoo xam ne daan fàng ñu di ko gis am yoo xam ne day nëbbu ca biir yooya nag moo gën a garaaw moom day nëbbu ca biir yooyu mën a kenn mënu koo xam diggante jaam bi lay doon ak boroomam ak boroomam kon mu indi xaaj bu njëkk bi fa zaahira ya nga xam ne mooy aji feeñ caay-caay yi feeñ xiyee ñoom xaraamun lu araam la fatlub na nga sàkk al mubaadara gaawe tuub ga gaawe tuub jëm ca sa borom caay-caay yi feeñ daanaka rek mooy yi suñu borom araamal lislaam araamal ko ta nga xam ne nit ki bu koy jëfandikoo mën nañ koo xam dana ko indi léegi mooy yi nga xam ne daal dafa xaraam nga xam ne yooyu moom mooy yi lislaam tere moo tax saa yoo yëgee ne yaa ngi ci am benn na nga gaaw njëkkante tuub dellu suñ borom sëñ Tuubaa ku yéeme la ñaare fu mu waxee al mubaadara al mooy fi rek gaawee rek mooy gaawee dara waaye moom fu mu ko waxee lam ci jublu ñaare mooy gaaw jëm ci tuub al mubaadara fa waajibul aji war la mukallafin ci bépp mukallaf aqala boo xam ne xellu na alkafu fegu an ha walis leen xaw fa rabbi naasi ngir ragal buurub nit ñi jàlla ba màgg na nee bépp bépp jullit yi nga xam ne lislaam da koo tere ne yii moo xaraam mu nekk yu fës yooyu de jullit bu nekk war naa góorgóorlu ba bu ko ca kenn seen ka xiibatin lu mel ne jëw namimatin rambaaj wa kasibin ak fen wa xaanisal yamin ak teeñul ngiñ waaw teeñul ngiñ wa wa ak parparloo wa zuuri ak seede aw nar wal faxshaay ak ñaawteef mooy njaalo ak ngóor jigéen ak lépp lu ko nuru wama ak lépp loo xam ne laa yaani du jariñ min xawlin ci wax aw fiilin walla jëf wama ak lépp loo xam ne laa yuux nii du mën a jariñ ba léegi rek benn la nee na bokk na ca yooya lu mel na jëw xam nga jëw kii jëw dañ xam nañ ne mi ngi jëw dafa feeñ te jëw mooy nga tudd nit ki loo xam ne bëggul ku ko tudd ca moom ndax xëy na ayib la ca moom wala rafetut nga di ko tudd moo xam nag dafa teew wala dafay nekkut yonent bi sallallahu alayhi jàngale woon na ko mu ne ko bu fekkee ne li may wax ci moom daa doon dëgg maanaam nga toog fii naan diw day eh, fu mu toll day njaal day def ak doon sax loola dëgg la loola jëw lañ koy tudde ndax yaa ngi tudd ab deram di ca teg lu rafetut loo xam ne moom bu sañoon kenn du ko ko def ak doonte loola dëgg la bu fekkee dëgg la mooy nekk jëw bu fekkee la ngay wax ci moom du dëgg da koy sosal nag moom nit ku baax la kon loolu aw sos lay tudd aw sos hmm. Euh, zikru shaxsi euh, euh, zikru shaxsin nga tudd jëmm xaalal xëy bi ko sëñ Tuubaa waxee woon ci aljawhar nafis mooy jëw moom nag lu yaatu la lool sax lu yaatu la lool moom daal jàpp ne saa yoo tuddee nit di wax ca moom loo xam ne dëgg la sax ayibam la sikk la su nekk ci moom waaye nga tuddee ko ci aw nit nag di cee di ko tudd nga ne nit ñi danañ ko xamal loola te boo boo noppoon duñ ko ko xamal loola tabarkal la namimatin rambaaj rambaaj mooy tuxal wax fa naqlukal xadisa am man xadasa na rambaaj mooy nga toxal waxi jàmbur mm, ci anamuk yàq maanaam daal nga nettali dara ci anam goo xam ne yàq la yow de diw diw toogoon na fee di la wax nàngam nga ne jubloo sax ngir laabire kii ngir nàngam déedéet da ngaa jubloo yàq saa yoo xamee ne daal yaa ngi jottali wax tasaare wax wala jëf ju mën a doom te lañ ci jublu mooy yàq subaa loola la ñuy tudd rambaaj yonente bi neen du dugg àjjana mukk wa kasib ak fen mooy wax lu dul dëgg te jublu ko ca wax lu dul dëgg te jublu ko ca ngir am ca bànneex rek waaw man mii nga gis dem naa nangam fekk demoo fa yow tey tey xam nga ko tey xam nga ko sëñ diw dara ñëw ba sama kër ngir ngir nit ñi jox la dara jana ah, yow kat tabarkàlla fekk du dëgg nga ne wax ko lu dul dëgg dëgg dëgg mooy koo xam da koy wax nii rek nga ne amul ko benn jariñ sax waaye da koo tàmm rek nañ ci yàlla musal innama yaftari alkadiba allazina laa yuminuuna bi ayati llah wa ulaika humul kazibun suñu borom dem na ba ne kuy wax lu dëgg sax dafa mel ne amatul ak yàlla waxaanisal yemin ak teeñul ngiñ mooy loo xam ne xam nga ne du dëgg wala yaa ngi cay sikk sàkk nga jekk-jekk waat ko waat wala nga waat dara xam nga loolu waroo ko waat waroo koo waat ba tey bokk na ci bu dee da jàng fiq moom lañ ca jublu rek mooy nga giñ na dinaa def nangam te defoo ko wala nga giñ na du ma def nangam ba def ko waaye bii muy wax nag moo gën a garaaw mooy waat lu la wóor te lu moo bari ci jamono ji loolu moo bari ci jamono ji wa taassubi ak par par loo par loo mooy mbir mu nekk doo ca xool lay dëgg ak la dul dëgg da ngay xool waa ji rek neexu la wala bokkut ca kuréel ba nga bokk wala nangam nga jekk-jekk rek lu mu wax nga xëpp ca kaani wala kuréel ba nga bokk xam nga ne kat boo ca gisee lu dul dëgg doo ko nangu loolu moom it dafa yaatu maanaam ab murit nga nga gis ay murit euh, dégg nga wala ñuy askanoo ne ay sëriñ lañ ci murit gi nga gis ñoo xam ñuy def loo xam ne moom ñëpp xam nañu liy jaaduwut waaw yow yow nga bëgg parparloo rek bëgg koo layal déedéet loolu baaxul mooy fépp fa dëgg yow da ngay ànd ak dëgg rek nag bu yàlla dogalee fa nga far nekk ca dëgg nga ànd ak ñoom bu nekku ca dëgg nga xam ne ñooño ñoo toppal dëgg gi waaye du ca du ca jëmmi yoon wa du ca jëmmi yoon wax bu yàlla dogalee tamit koo xam ne xëy na bokk leen gis-gis waaye tey wax na lu jub nangul ko nangul ko kiyam boobu nangul ko njubam googu waaye bu la parparloo daf yóbbu mooy sot parparloo mooy sot rek waaw diw daal nangam nangam daf ñoo bañ daf ñoo def nangam nga ànd ak rek lépp lu mbooloo mi wax baax na donte moom a ngay jëf lu baax doo ko nangu doonte sikk sam wax sax mi ngi ci yow wala mi ngi ci kuréel ba nga bokk doo ko nangu déedéet taasub moom it baaxut ak seede aw nar waaw seede aw nar nañ ci yàlla musal mooy nit wax dara loo xam ne du dëgg nga seede ko ci anam bu mën a doon nag anam bu mën a doon ndax léeg-léeg mooy ñu seede loola ko nga noppi waaye léeg-léeg nit day nettali loo xam ne daal di daan ne maag diw mii ñoo àndoon mu def nangam nga daan ne mu daal di noppi doo ko dindi loolu subaa kon nit ñi dañuy gëm ne kii kat wax na dëgg ndax diw a nii toog li wax bu dul dëgg dana ko weddi kon loolu lu doy waar xam naa ñi liggéey ci wàllu avocat euh, mel noonu ngir mu dal leen dana dana di yomb ak lu mel ne faxsha moom bu ñu ko waxee rek bépp xeetu ñaawteef dajay dugg waaye lu ci ëpp suñ borom euh, bu ko tuddee indil ko alif laa am ci ci ngóor jigéen la ko jëmale ngóor jigéen innakum la ta'tuuna na faaxisha al faaxisha kooku moom mooy jëmmi ñaawteef ci boppam léeg-léeg nag mu ne faaxisha tan jublu ca njaalo faaxisha waaye lépp lu bon da cee dugg waaye nag ak lépp loo xam ne amul njariñ boo ko waxee wala nga jëf ko xëy na doo ci am bàkkaar de waaye doo ci am tuyaaba waaw ah, laa alayya wala aliya na ko Abu Saydin woon loolu baaxul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu waxoon daa wax ne min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani lu la amulul njariñ nga xam ne boo ko waxee doo ci am bàkkaar dëgg la waaye doo ci am tuyaaba loolu noppi ci moo gën waaw ah, fa li yaqul xayran aw li yasmut bokk na ca yi xaraam kon yii yëpp yu araam yu feeñ la loo ci def rek day daal di day feeñ bokk na ci lu xaraam mu ne wa saa yi ak dox lil xaraami jëm ci lu xaraam wa nazari ak xool ba tey lil xaraami jëm ci lu xaraam wa kulli ma ak lépp loo xam ne xab bon na fil kalaami ci ay wax wa ka mubasharatihi ak ni ki joññonteeg moom bil farji ci pëy muy awra aw siwaahu wala lu dul awra sax wa nahaw tere nañu ñoom borom xam-xam ba léegi wala boog lislaam an nutqa tudd bihi ci lu bon ay dan ba tey maanaam dox jëm ci lu xaraam wala xool jëm ci lu xaraam ak bépp wax boo xam ne lu bon la loolu ba léegi day dugg ci yi naka noonu jigéen joo xam ne séqu leen dara ngay joññonteeg moom moo xam ca njaalo mooy ci pëy nga ne njaalo lay doon wala ba ngay joññonteeg moom ci lu dul njaalo di wut di di di di wut bànneex ca moom te fekk moom léwu la yooyu yëpp day duggu ci yu xaraam te dafa fés naka noonu wax loo xam ne lu xaraam la ba tey dafa fés bokk na ci bàkkaar yi fés walkat bi ak bind wasamaay ak déglu wasti wastimaalihi akuk jëfandikoom maanaam lu araam boo ko bindee tamit ba tey moo nga waxoon ko ñooyam wala nga jëfe ko ba tey nga di ko déglu dañ la koy tere lu du nga ñàkk pexe lu xaraam naka noonu nga di ko jëfe lu xaraam mooy nga di ko lekk wala nga di ko naan wala nga di ko sol wala yu ko nuru ba tey day dugg ci yu xaraam yi rek wadam mi wala boog wadami misli muslimin ak deretu jullit ak ku demee ni ab jullit ku demee ni ab jullit mi ngi ci jublu azimiyu azimiyu mooy koo xam ne dëgg la du ab jullit waaye dafa fasanteeg wëllëree jullit ñi bu njëkk ci yemaleel islam loolu dadaa am maanaam day am koo xam ne day nekk ci état jullit ñi réew moo xam ne wala dëkk boo xam ne wala tund woo xam ne ñoom ay jullit lañu am kilifa jullit nga xam ñoo not foofa lu waaye lislaam moo fay dox loolu lislaam dox na na yéefar yépp génn déedéet nit mën na faa nekk bañ a dugg ci diina ji su boobaa nag lislaam tëral ko ay sart ne ko nii ngay doxe ak nangam ak nangam mu nangu loola kookee àq ji julli ñi am ci nga bañ koo lor bañ koo rey bañ ko def nangam àq joojee lay am àq joojee lay am ndax aw fu bila aad dañoo fasante wëllëre mhm. jullit dina taxut ñuy wax moom kon ab jullit ngay tuur ab deretam wala koo xam ne du jullit ne ko suñu réew mii nga xam ne niñ fi dëkkaale ak ñoo xam ne duñ ay jullit waaye nga xam ne jàmm rek ngeen séq kooka nag moom kenn du tëb di dal di dal ci kawam kon doo ko tuur aw maalihi wala alalam araam na nga di ko jël ci lu yoon aw mislihi wala lu mel ni alalam aw mislihi wala kem alalam dami ji day dellu ci maalihi wala kem alalam hmm. mooy ab daram wala lu wala lu ci jëm day araam kasaaka ni ki noonu bokk na ci xaraam nga def ko jullit xijraanun ak tongu lahoo ñeel jullit ba li xayri xaqi sharci ñeel lu dul aqi yoon aqi shari'a fahdar na nga wattandiku kullahu benn bu nekk ci ñoom mooy yii yëpp ab jullit nga di ko tong tóngu mooy dogonteeg moom waaw bàyyi naa ko adduna du ko def na déedéet loola xaram na dëgërul dañu wax ne bu dee la tax nga di ko tóngu nag day dellu ci wàllu lislaam nga xam ne yow yàlla rek a tax dëgg yàlla dafa lànk bañ a julli wala day jëfandikoo lu xaram te laabiri nga ba sonn mu lànk su ko defee nag mën nga koo tóngu mën nga koo tóngu euh, lu xaw a yàgg lu xaw a yàgg tóngu baat waxtu wu jot dee ko xamal rek ne ko man kay bu man ak man amul solo waaye man lii ngay jëfandikoo wala julli gi nga lànk bañ a def rek moom moo tax daal xam naa sama diggante yow neexatut te su boobaa du tee nag da ko nuyu waaye sa yeneen relation ak intérêt yi nga ko amal yooyu ngay téye rek ak yëmënta ñàkk waaw ah, yëmënta ñàkk mën nga ko def ki wax ak mu dara nga tontu ko waaye daal buy amam relation toog di xàqataay ak dem këram di ko seeteek yooyu yëpp da nga koy daal di dagg banaa bi nag xamal ko ne ko looloo tax su ko defee mu xam ko kon mu xam mhm. mi ngi noonu bu fekkee nag la tax nga di ko mere daa sa jëmmi bopp rek la ni ki dalay tooñ wala dalaa wax loola neex kese kese nga xam ne foofa rek la yem su boobaa nee loo ko mere mere du passé ñetti fan bu passé ñetti fan war ngaa dindi tongu ba waxuñ la nga def ko muy sa xarit déedéet tongu rek mooy dogante dogante ba da nga koy dindi di ko nuyu bu la waxee nga déglu ko nangam loo man def waaye nag man ngaa téye sa bopp nag ci moom ci say mbiri say vie privée lépp lu aju ci lu mel noona da nga koy daal di da daal di téye waaye tongu ba nag bu dee àqi sharia tax nee naa la mën naa yàgg nee ñu mën naa mat fukki fan jàpp weer jàpp weer tayit yëmënta ñàkk faaw nga def koog moom kon loola lu xaraam la ba tey mi ngi lim yi xaraam caay-caay yi nga xam ne day gàllankoor jaam bi yi ci feeñ moom lay lim nii te mooy yi araam rek yi araam ci sarixa tañ xam ko waka ak niki ak xeebam wakal ihanati ak niki ak doya dalam wakal ak niki ragalante ginnaaw ak moom wala xiyaana ak wor wakal mumaakarat ak ni koy fexeelante ku nekk di fexeel sa morom lu ñaaw wala mujaadala ak beejoo wa kulli fasidin ak bépp aji yàqu minal muamala ci xeeti jëflante yi ba dee bokk na ci li i xaram ab jullit nga di ko xeeb waaye nit ñi moom lu ëpp liñ lay xeebe rek eh, ci wàllu ay alal ak ay solo yëre yu rafet ak ay defoo nangam waaw boo solee moo tax nit ñi li nga gis ñooy tiitaru ku nekk solu ba ne jugg lam ca jublu rek mooy bëgg ñu jox ko ma ndax dañoo seetlu ne nit ñi ku solowut noona <laughs> duñ la jox war ma bu defee ñu daay nga gis ñu ñoo xam dañuy solo noonu kon ab jullit deesu ko xeeb deesu suñ Tuubaa nee na bari xaana ko ñu xeeb fekk fa yàlla ku kawe la fa bari xaana ko solo ba na jug nit ñi réel ko lool fekk goloo ko tane fa sunu borom subhanahu Sëñ eh, Sëñ eh, Tuubaa dana ko wax ci kanam wala nga di ko doyadal ab jullit nga di ko doyadal te xeebel nag mooy indi ak doyadal mooy indi ak doyadal ndeysaan wala naka noonu bokk na ci xaraam raggalante ginnaaw mudaahana waaw ah, mudaahana mooy ragalante ginnaaw xam nga ne nekkul ca yoon waaye ngay maslaa ak moom di ànd ak moom ca ñàkk gam ñàkk nekk ci yoon loolu baaxul loolu baaxul kon koo xam ne dafa nekkul ci yoon ni ki jigéenu jullit dem dem ci sëy ca tubaab yi ñu takk ko xam ne moo xam nga ne loolu loolu loolu baaxul waaye ngay ci maslaa ak moom rek na ci yàlla ñi ma ko wax dëgg di fexe ba ngir intérêt ya ngay am ci moom wala boog bañ mu mere la déedéet maanaam saa yooyu maslaa nit daal ba mu dugg ci lu xaraam wala mu bëgg la ca xaraam nga continuer maslaa ba loolu la ñu tudd ragalante mooy kenn du wax sa morom dëgg ad diinu an nasiha diinum laa birante lay doon bokkut ak mudaara mudaara nag mooy maslaa ci loo xam ne xëy na euh, bàkkaar amu ca laakin mudaaraatuhum waqad nudibat waaw waaw waaye nag euh, waxadduha irdaauhum bi xayri ma nuxiya makruhan qul aw aw aw muharrama maslaa gi ci loo xam ne lu nekku sax lu ñu sib nekkul lu ñu sib hmm. moo tax boroom xam-xam dëgg moo ko man wala mu talix illaa li aalimin ni ko sëñ bi waxee woon ca aljawhar nafis jàngoon nañ ak lu mel ne wor ngeen di warante nga di ko woon lii fekk loolu nii fa wala ku nekk di fexeel sa morom waaw diw dana xam ne duma morom bu kii fexee kee fexe nga léegi xew nga ngay fexe ba am foto nit ki yoo xam ne day eh, ñàkk sutura nga wuññi ko ngir ku nekk naa la yàq léegi julli ñee foofu lañ toll ak mujaadala mooy werante woo xam ne bu nekkul lu am objectivité maanaam du dañuy werante ci xam-xam ngir dëgg leer dong bu dëgg leer a ñu topp ko déedéet dañuy nekk di werante kii naan maa la gën kii naan maa la gën sama tariixa gën sa tariixa sama kepp loolu mu ci la ñuy nekk maanaam jéemu ñoo lijjanti ba ñoom ñu gën waaye dañuy lijjanti naa sama maama a gën sama diwa la gën waaw ñii ne nekku leen ci dara ñii ne nekku leen ci dara werante bu amul njariñ booba ak lépp loo xam ne lu bon la ci xeeti jëflante yi rek loola dañ koy dugal ci lu xaraam kon mooy ak mooy caay yi nga xam ne dafa feeñ mu ne faslun li ab dog la fil bawaatini ci caay-caay yi way nëbbu fil bawaati ci way nëbbu ya ci xeeti caay-caay yi daa wax ne zahiratin wala ba zahiratan batinatan ama ya nga xam ne xad batanat nëbbu na faxee ñoom uyubu nafsi ñooy sikki bakkan xay su wujjat xay su wujjatat foofu fekkees na leen caay-caay yi nga xam ne dafa nëbbu nag te mooy yi gën a bon mooy mooy sikkus bakkan rek mooy sikkus biir mooy sikk yi nga xam ne day taqoo ak bakkan yooyu moom mënoo koo xool gis ko moo tax mu xaw a danger mënoo koo xool gis te la muy yàq nag moom moo gën a garaaw ndax nit ki yee ñu njëkk wax mooy caay yi feeñ nit ki mën na caa mucc nga ne doo ko gis mukk mu def ko ndekete nag mi ngi caay-caay yi gën a bon ca biir ga su ko defee yow da rafet ci moom jot defe ne moom tabarkaala nangam nangam fekk ne yow fekk ne yow am na lu ko yàq ci biir eh, yoo xam ne tabarkaala ma ngi koy yàq saa def na ragal da ngay jël suul xaatima mujj gu ñaaw saa def na ragal suul xaatima de mujj gu ñaaw alaa man ci képp koo xam ne eh, kaanat nekk nañu ñoom caay-caay yooye max di aji bóof fii ci moom walam yatub te tuubu ko lillaahi jëm ci yàlla nee na caay-caay yu nëbbu yooyee nga xam ne moo nekk ci biir mooy sikk ayib yi nekk ci nit ki ñaan rëy ngisal def naa nga xam ne loolu nit ki mënu koo xool gis ko te fekk man ngi ca biir ni di def dara nga naw ko ca loolu fekk la ca biir baaxut nee na yooye day wax nañu képp ko yàlla defula tawfeex nga tuub dellu ca ginnaaw kooka ñi ngi ragal ne ku am mujj gu ñaaw lay doon man jikko yooye kum bóof ci sab xol kookat bu ko tuubut am ak mujj gu ñaaw kon nag aadana yàlla nanu musal arrahmaanu yàlla mi aji yérame mi haa ci ñoom fi zaman ci jépp jamono wa charri shaytaanin ak bon boni seytaane wa kulli di fitan ak képp kuy boroomu képp kuy boroom fitna képp kuy borom fitna amin yàlla musal ñu ci waxee ñoom caay-caay yooyee aqaari bu ay jiit lay doon maal xayaata ànd ak ay jaan munqalibaatu yu di way wëlbati ko xaqibal mamaari ci gannaaw deega subhaanallah maanaam caay-caay yi nit ki ëmb ëmb ci biiram loola bu fekkee tuubu ko dellu ci suñ boroom bu faatoo jikko ju ñaaw ju nekk dañ koy def mu nekk ay jiite ki jaan ba mu toll na jikko ju ñaawee tolloon ñu dugalal ko ko ci bàmmeelam yàlla na ci yàlla musal musal mboolem jullit waxee ñoom it kaanat nekk nañu ashadda di gën a tar min zahiratin ci caay-caay yu feeñ ya loolu wax naa ko léegi li kaw ne yaa ngir seen mu nekk tulaa imu di méngoonteeg anaf sa bakkan ba abadaa faaw kamaccinaa bu nahi ni nga xamee ne bàyyi ak tere kaana nekk na afdala di gën a jafe rek afdala di gën lay fiir waaye di gën a jafe mi mi iktisaabil amri ci fàggu ndigal muy ci jëfe ndigal fii maa ca la nga xam noxi la toxalees na ko ndeysaan sëñ Tuubaa nee na caay-caay yee ñu njëkk lim muy sa nit ki di def lu arab nii di naan sàngara wala muy njaalo nii muy fees wala muy def yu mel noona yooyu de ni bon na lool waaye nag ñoo tane caay-caay yii nga xam ne nag dafa nëbb caay yii nga xam ne dafa dafa nëbb ndax nit ki mën nay def bàkkaar nii ba noppi naa am sax ko day njaaloo ba noppi rëccu ko lool wala mu euh, carte ba mu rëccu ko lool wala yu mel noona waaye yii nag nit ki de mën naa nekk ci nit ki sax du ko xam nit ki mën naa rëy du ko yëg sax man mën mën nay sal te du ca bàyyi xel defe na moom mi ngi def lu baax day faatu rek doo koy xam yàlla ci yàlla musal moo tax moo gën a garaaw moo gën a garaaw ndeysaan nee na kon moo gën a garaaw caay-caay yi nga xam ne dafa feeñ ndax caay-caay yi nëbbu day méngoonteeg sa bakkan maanaam day day adapté wu waaw yow maanaam loolu ngay bëgg yooyu ngay bëgg caay-caay yee nag dëgg la dana neex ci bakkan nii waaye jàmm bi dana xam ne ne lii baaxut ndax day fàngaaral day day fàngaaral dana xam ne lee rafetut lee rafetut ndax yi nga xam ne boo koy def nit ñi dañ lay gis man ko ko bàyyi ngir nit ñi sax waaw man ko koy bàyyi foo ànd ak jigéen ba gis ne mbooloo nga ne nga gaaw nëbbatu foo yore bitelu sàngara ba gis nit ñi nga gaaw ko ca àll ba xam nga mën naa la ko bàyyi loo xam ne sa diggante ak sa borom la yow doo ca doo ca gis nit ñi doo ca nit ñi mënuñu mënuñu laa yàqal yooyu dafa garaaw tey dafa méngoo bakkan ni nga xamee ni rek jëfee ndigal moo gën a yomb bàyyi tere <laughs> loolu moom lu leer nañ la jëfe ndigal julli jot nga jàpp julli wax dëgg yàlla yor su kurus tocc toccal ajjuma jot nga sol sa yére dem yooye moom wax yàlla moo gën a yomb nag bàyyi bàyyi bàkkaar bàyyi bàkkaar moom jafe-jafe-jafe la dañ dana am pëstéeb dana góorgóorlu lu ñu woote dana ci dem luñ dana yëkkati alalam joxe waaye nag bàyyi ay tere loolu nag fa la euh, fa la feebaram di nekk la yàlla saa boroom euh, saafara noonu ñun ñëpp rek tabarakàllah wallahu taala alamu sawaab